noo ngi fii ci daaru tanzil kër cheikh Mouhamadul Montaxa xalif général kullu murit yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér nekk fi ak njabootam muy ñi nga xamante ne bii lépp lu jëm ci wàllu xam-xam ak diine ji ci seen loxo la ko teg ñu ànd ak cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne moo yore kàddoom ñu fas yéene yëkkati ay kàddu yu ndigal yoo xam ne moo leen ko jox ngir ñu jottali ko àdduna bépp ak jullit yëpp ak murit yëpp bokk jullit yi bokki taalibe yi bokki réew mi yëpp ñu ngi toog fii ci kër du Mouhamadou taxa mi nga xam ne moo fi Serigne tey ñaan mu yàgg fi lool tam ànd ak wér ba naa yi nga xam ne am na ko ci lislaam am ko ci liggéey sëriñtuwaa suñu bor may ko kàttan ak wér lépp mottali ko nu mu ko bëggee kon ñu ñëw fii ci ndigalam ngir yëkkate kàddu yi ñuy bëgg a wax yàlla def barki démb sax la ma ko jëkkoon a wax ne naa ko jot li bokki taalibe bi waaye moo tombé bisu Kazu Rajab ba démb ci timis mu waxaat ma ne naa ko wax tey jii ba yàlla dogal ndigal lii def siwaat ñu tey mun na ko naa boole kàddu yëpp jéeme ko ci ñépp la ci jiitu nag mooy ni mu ko waxee woon rek mooy ñëpp toroxluwaat dellu ci yàlla tuub jéggalu suñu borom. ngir lii nga xam ne suñ borom def na mu tàbbi ci àdduna si tàbbi ci biir Sénégal yàlla mi ko fi indi te muy mbindaaf comme ñëpp yàlla jëliwaat ko fi mu fàttali ñu baax nag la Sëriñ Tuubaa waxoon ba peste ba ñëwee ci njaarim ba ñëwee di ko ci ñaanloo te leen waxoo leen yàlla suñ boroom mi ko fi indi waxtu ko jeexalee dana jeex ba bis xam ngeen histoire ba ñëpp noonu jëmee day gudd waaye moo xëy ne suñu borom xamal na ma ne. jàngoro jooju ñu fi indi yàlla jëliwaat na ko fi mu tàggoo ñun kon nag sëriñ bi nee na mi ngi teewluwaat moom rek di ñaan suñu borom mi ko fi mu jeexal ko di fàttali rek nag li nga xam ne waxoon na ko fa lii mooy li ci lislaam santaane nee na kon loolu ñi nekk bitim réew ñii di ay jullit ñii di ay mbokki taalibeem mu xam seenu njàmbaar ak yërmaande jëm am ci xam la ñuy dund fañ nekk nee nañ xam ne fàttewu leen ñoom ñëpp mu ngi leen fàttaliku di leen ñaanal suñ borom defee leen jàmm musal leen ci ba ñibbisiwaat jàmm ñi nga xam ne yàlla def na itam ñu jot ñëw ci biir réew mi nee na ku ci accepté koo xam ne ñëw nga ba ci biir nee na na nga dem seetlu sa bopp ndax moo gën jàngoro ji di gën a law di wàlle ndax addis bi dafa wax ne laa dara darara wala dirara kon noonu lool nee na loolu mu ngi koy fàttali ñëpp ku ci accepté nga fexe ba dem ca ñu war a seet ñu xool la ba xam ndax tekkiwut ne ku jóge bitim réew ku nekk loolu dalaa dal waaye mu ngi koy fàttali ñëpp neena itam mu ngi fàttali ñëpp itam dénkaane bi nga xam ne bokk na ci sëriñ bi mu wax ci njaaram waxoon na ne yéen a ngi jëm ci jamono joo xam ne yett ci tax a mucc noppi jekki jaamu yàlla nangoo liggéey doyloo nga am doyloo la nga am muy muy juróom yëf yi nga xam ne sëriñ Tuubaa daana ko santaane neen lool nag jamono jii ci raw kon nee na ñëpp mi ngi leen koy sant lépp loo xam ne daal dana musli ci jàngoro ji wala dana tax muy muy muy wàlle képp ku ko mën a wattandi na ko te la ci des lépp nañu delloo ko suñu borom la ca dellu ko waat nag mooy nee na mi ngi sant bokk jullit yi di sant bokk taalibe yi rawatina nag njabootu Cheikh Mouhamadul Fadel di ko teg ci loxol sëriñ Aboul Barka mi nga xam ne mooy kilifa kër ga ndax bi nga xam ne màggal gi ñëw na fi mu ñëw ba ci moom waxtaan ak moom la mu waxtaan ak moom ba Serigne bi wax ko kàddu mu ko wax tam waxloo ko Cheikh Ahmadou Badawi mi mu wax ko àdduna sépp jëfandikoo ko. sëriñ bi nee na mi ngi ko ci sant di ci sant mboolem njaboot Cheikh Modou Fadil di xam ne eh, loolu rek lañ séntu ci ñoom ndax ku tudd Cheikh Modou Fadil sax dem ci bientu bu nu wëtee bil waaye nag dëggal nañ ko ndax la ci gën yéeme wax naa ko ba démb njabootu Cheikh Modou Fadil gépp kenn ku ci ne dangaa dugg ci sa néeg bu gën ngir bañ nit ñi gis la jàng alxuraan jàng xasida teraanga yi ñu tasaare ko ci dëkk bi kon sëñ Yaxma sëriñ bi nee na mi ngi yóbbanteem ñëw ci sëriñ Abo ak mboolem njabootu sëriñ bi yëpp di leen sant bu baax di leen gërëm ngir xam na loolu itam xam na ni yéen a ko bokk ndax bu leen di santit eh, da leen da koy jotali rek waaye cant ga moom ci biir ndax bu leen sant rek sant na boppam la ca desaat nag kon mooy kàddu yi nga xam ne war naa jëm ci xew-xew bi nga xam ne moo xew fii jamono toll ndax sëriñ bi nee na mu ngi fàttali ne suñu borom dafa wax ci alxuraan atiu llaha wa atiu rasula ulil amri minkum moo tax dañoo xam ne ci biir àdduna lañ nekk am ñu ñu ñu fi bokk ñu fi bokkal dëkk ne ci biirum réew am ñu fi bokkal dëkk kon nag lépp loo xam ne war na nit ci kum bokkal am réew war na ci koo xam ne bokk nag nit ci dëkkandoo àq joojee dañ ko war a sàmmonte ngir loolu mooy li nga xam lislaam santaani na ko loolu nag ay kàddu la yoo xam ne ñi ko war a leeral li nga xam ne sëriñ bëgg na ko ni ngir bañ kenn di loroo fii ndax fii moom sëriñ Touba lam ñaanoon suñu boon defal na ko ko woon fil ma ba wal balaya kullaha anha wa tay wa tay shurbaha wa aklaha kon moo tax suñu xeddal na naa suñuy kàddu du mën a gudd ndax sëriñ bii mooy Cheikh Mamadou Mountakha ay kàddoom yónni na ko Cheikh Mamadou Bassir waxee na ko ni ko sëriñ bi bëggee woon li ci des itam ñi seq liggéey bi kenn ku nekk la nga ci war a leeral sëriñ ba Basiiru wax na ko da ko leeral xanaa kon di man ñaari baat képp lay mën a wax yoo xam ne ma bokki taalibe yi laa koy jottale rek ci ñi ma soññ sañ a soññ ñun murit yu ndaw yi rek ci nin war di gàttandoo ndigal ak buñ ko déggee nin ko war di fa yéenee jëfe ci sellal mu mel ne lenn ndigal du tuuti waxtu ndigal jóge bu nekk taalib bi moom déglu ndigal ak dégg ndigal ak jëfe ko la war a def te ndigal li itam lu ñor sëriñ bi la moo tax sëriñ bi itam tolluwaay bi bi mu demee nii mu woo ñim bokkal liggéey bi ñépp waxtaane wu ñoom ba noppi moom ay kàddoom yónni ko sëñ Basiru ci biir waxtaanam it wone woon na ne am na ci loo xam ne dana ci fàttali fa sëriñ bi nekk tam di fa si fa yéene nekk waaye am na ci loo xam ne da koy diisoog ñi mbokkal liggéey bi laaj leen ci seen xalaat te loolu mel na ne ba tey delloosiwaat na ko ci na ko lislaam bëggee waaye delluwaa delloosiwaat na ko ci xel mu rafet mi ak doomu adama laaj waaye delloosiwaat na ko ci xam ne bokk mi yi mu bokkal liggéey bi ñoo bokk bëgg bokk Pastef kon dañuy ñoom ndax seeni xel doy na ko te xam na ne lu koy defaral rek la ñuy waxtaan ak moom doonte danañ ko delloo lépp ci Pastefu taalibe duñ bëgg a wax duñ bëgg a am xalaat waaye sëñ bi faaw mu déglu leen ndax wa shaawiruhum fil amri ci alxuraan loolu mënta ñàkk kon bu loolu amee nun bokki taalibe yi nga xam ne noonu la sëñ yoon yónni sëñ Basiir ci noonu nu bàyyi xel ci lii nu sëriñ Basiir wax te bàyyi xel gi mooy mbir mii nii mu doyee te sëriñ Muntaxa bëgg ñu sàmmoonte ci ak ñaar yooye mooy ñuy jaamu yàlla waaye ñuy wattandiku waaye ñuy bàyyi xel ñunu yàlla booleel ñuy kilifa jamono àdduna ji lépp day tax ak déggoo mën a am ba lépp mën a yomb lépp mën kon nu nañ fas yéene lépp lu nu ci dégg ñu ne nañ ko defee nii kenn ku ne na ci delloo sam xel xam ne defe ko ne ko sëriñ bi bëggee moo nu mooy li ñuy jariñ kon nanu déglu ñu nuy wax li ñu nu wax ne nii lañ ko nii la ko sëriñ bi bëggee ñu defe ko ni ndax mooy gën a rafet mooy gën a matale noonu ñëpp nu fas ko yéene defe noona maa ngi yëkkat sama kàddu ci turu kilifa yi di jot li ndigal lii sëriñ bi wax muy xew-xew yi xew ci réew mi xew ci àdduna muy wér a dégg te kilifa yi jël ci ay matuwaay ngir bëgg yàlla musal ci nit ñi sabablu ni ko yàlla santaane li ci des ñu bàyyee ko suñu borom mi nga xam ne mooy dogal te di ko ñaan mu teggi ko ci dem gën a gaawee euh, xam nañ ne ndigal yàlla yi julli ci la bokk moo ci gën a màgg ci julli mbooloo koy def te mel na ne kilifa yi yëg nañ ne bu ay mbooloo dajee ci barab lor ji mën naa tasaaroo sëriñ bi waxtaan ak ñi ñi dénk liggéey bi bañ gis ne mën nañoo def ndigalul yàlla li te mën nañoo moytu li waa kër docteur yi di wax moo tax mu wax ne jumaa ja incha allahu taala ña fa nekk nga xam ne fa la ñuy liggéeyee te lii li mazhabu Malik wax muy fukki nit ak ñaar rek bu ñu dajee ak ilimaan bu ñu julee ajuma wér ña fa nekk mat nañ loolu mbaa ñu ëpp ko kon ñooña am nañ ndigalul des fa di jiit julli waxtu juróom ak ajuma ji su ko defee ndigal yàlla yi sax na lor ji nga xam ne ni it ñu ngi koy séenu ci mbooloo yi dajee woon ci barab ba ñu moytu ko ndax sunu borom mi tegee jàngoro moo santaane faju mii tege ay nattu moo santaane fegu moo santaane sabablu sëriñ bi nag bëgg ñëpp mucc waaye li jiitu ci mucc gi mooy saxal ndigal yàlla li kon fexe ba na ko yàlla bëggee ñu defe ko ni waaye lépp luy sabab ak lor ñu moytu ko loolu nag yeneen jumtuwaay yi mu war a àndal ci matuwaay yi ñu war a jël dinañ ko jël ci set geek yi ñu war a def yëpp loolu fekkoon na sax waa daayiratu Muqaddamatul Xidma tàmbali woon ko ba ñi fi doon teew ci waxtu julli xam nañ ne matuwaay yi ñu doon jël yëpp ñu ko doon jël ba àgg ci foo xam ne sax mën na ne ñëpp àgguñ fa loolu nag sëñ banque soññee ak bëgg ñu gën ko bàyyi xel loolu daal mooy li mu waxoon ne nañ ko jotali ñëpp fu ab taalibe nekk dëkk ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu noo yi teew ñu yëkkati di seen loxo ñu tegal nañ si loxo Cheikh Mouhamadul wa raahu di joxe kàddu yu néew yoo xam ne ndigal ak yoo xam ko waaye moom li fi jàll yóbbaale na li ñu waroon a wax lépp salaatul jumaati nag mooy li nga xam ne baat yi ñuy wax ci la koy jëmale sëriñ Mbakke Abdourahmaan wax na ko léegi jumaam fukki nit ak ñaar ak ilimaan ci lay fasoo waaw ak lu ca dolli ko kon nag mel na ni ñi sëñ bi jox ndigal ñu nekk ci biir jumaa ji ami liggéey bi seenub lim jégg na loolu bu baax a baax a baax fukki ak ñaar yi tax jumaa fasu ànd ak ilimaan lu ko ëpp am na fa kon nag ñuy sëñ bi di xamle ne kenn ku nekk fu la waxtu yu fekk mën nga ko julli sa tusbaar di xamal mbokk julli yëpp rek ne leen ni ko sëñ bi waxee incha allahu taala fa seet nañ ko noo dunde noonu ngir lii xew ci àddina bépp te ñëpp di ko dund sëñ bi di ko dund ñu ko ñëpp di dund wala sax mu ëpp leen ci ndax mu bokk jaboote ñëpp kon tax na ngir wattoonte ak sàmmoonte ak ñi ko jamono laaje mu wax ne dafa bëgg ñi nga xam ne ñoo liggéey ci jumaa ji rek ñu nekk fa di taxawal liggéey ba ba jamono yi di weesu incha allahu taala kon waxtu gi lu jot dana noddu waaye ku dégg noddu gi na nga xam ni am nga ndigal jullee fa sa kër loolu mooy ndigal li bàyyi ci sëriñ bi kon ñu ngi e, fàttali ak di yëgal ñi nga xam ne dañoo baaxoon di tànn di jullee seen waxtu si jumaa ñoo xam ne loolu mooy ndigal li bàyyi ko ci sëriñ bi mooy ndigal yi te te moo lislaam digle kon ñu ngi sàkku ñëpp ñu tënku ci te xam ne incha allahu taala parce que nañ cee tënku te mooy di julle ku nekk nodd gi moom danañ koy dégg incha allahu taala waaye su boobaa itam dañoo wax ku nekk rek mu jullee fa mu nekk. incha allah ajjuma jëkk yëpp dañ ko nodd waaye suba waaye itam nañu xam ne julli gi moom du génn ci biti ndax julli ajjuma kenn ko tollale dañ nodd rek ñu nekk ci biir rek julli te suñu dafa xam ne ñu fay rek doy doy ci ñu liggéey rek ñoo julli ñoo fay julli waxtu juróom ñoo fay julli tam ajjuma yi ñi ñëpp am na ndigalu toog ca kër ya ba jamono dal fa mu nekkoon mbokk yi noo ngi sant yàlla julli ci siduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sof sunu kàddu ci kàddu kilifa yu tedd yi toog ci barab bi ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha euh, xam ngeen ne euh, li xew ci biir àdduna te law ba dugg ci Sénégal ñëpp a ko xamandoo waaye ñun ñëpp nag ñu maase xam ci ne euh, fitna su amee mbir mu nekk na mu daan doxe lu ca war a soppiku day soppiku xam ngeen ne julli ñu ko sëriñ Mbàkke waxee léegi ponk bi lislaam la boo xam ne moo gën a rëy ci jaamu yépp waaye jullik mbooloo wala jullik ajuma képp koo xam ne danga yore bor te boo ca teewee fitna mën caa am yoon may na la nga bañ a teew képp koo xam ne danga dégg ñu ne euh, ku la ëpp doole koo xam ne bu la bu la fa fekkee noggutu la te ma nga ca barab ba yoon may na la nga bañ faa teew képp koo xam da ngaa dégg ne ak wéradi wala tawar joo xam ne mën naa law ba téqatal la ma nga ca barab ba su boobaa am nga ngàntul bañ a teew te itam jumaa ji dafa am ñu fay teew ñu bare bare bare ñoo xam ne dañ fay teew ngir ak xër ak bëgg lu baax waaye ñoom julli ajjuma wàcc na leen soxna yi dañuy teew ci jumaa ji dafa bari lool te ñoom julli ajjuma wàcc na leen wàcc na leen tànk yi dañ fay teew te lu baax la sax ndax di ca nab na bi di ca nab na bi bu màggee tàmmoo ko te tàmmoo laago la waaye nañu xam ne tuut tànk yi julli wàcc na leen kon mag yi ñi nga xam ne ñoom la julli war ñoom itam wére di gi xew su xewutoon sax képp koo xam ne da ngaa soj soj mu metti di sëqat tisli nga xam ne koo dendal mën nga koo lor kooko sax am na ngànt mën naa ba ci dem ci jàkka ja ndaxte gannaaw ku lekk soble wala nga lekk laaj dañoo wax ne bul teew ci jàkk yi ndax bañ a lor doomu aadama yi kon wéri di koo xam ne mën naa wàlle képp koo xam ne jàpp nga ne mi ngi ci yow ndax yaa ngi sëqat ak yu ne demee am nga ngàntul bañ dem ca mbooloo ma te itam lislaam noonu la ko santaane bu ñu demee ca taarix kaaba ga am na jamono yoo xam ne am wal dafa dafa tàbbi fees dell safa ak marwa ba sax lenn ci kaaba gi mabboon booba am na ñu mat juróom-ñaari waxtu yoo xam ne dégguñu noddu waxuma la julli Yazid Yazid ibnu Muawiya ba mu attaqué Madina Munawara am nañ ay fan yoo xam ne kenn déggul noddu waxuma la julli kon ngànt su tàbbee dañuy xam ne ngànt dafa am euh, ba taawoon bu rëy ba xewoon ca am waas ñëpp xam nañu ko ba mu amee ca la Abu Ubayda ca la wàccib liggéey Muaz ibnu Jabal ca la wàccib liggéey am amr ibnul as bañ ko defee ci kanam mbooloo ma dafa wax ne ayuha nnaasu inna haada al wabaa ida waqaa fa innama yashtailu ishtiaala naar fa tajabbalu minhu fil jibaal yéen nit ñi dangeen xam ne jàngooru ji mu ngi mel ni tàkk-tàkkul mboob mboob day law law bu gaaw a gaaw kon kenn ku ne fu mën a bay boppam na ko bay bay boppam noo xam ne su ko defee dana mucc na ko def nit ñi daal di tasaaroo dem ci xur yi ak ci montagne yi ndax bëgg a mucc kon nag lii mbir la moo xam ne réew yi am kàttan am ay pexe am ay jumtukaay ma ngi fay law-law bu méttee méttee métti kon réew mu mel ni sunu réew mi euh, tàbbi na fi naam waaye sunu borom mi ngi muy musal ngir yàlla ak ndigalul kilifa yi muy médecin yi ak ngir yàlla ak ñaa ni mag ñu baax ñi ak sunu kilifa yu baax yi te ka ciy jiitu mooy Cheikh mu Mountakha jumaay Touba ji nag na ñëpp xam ne matuwaay yi nga xam ne moom la médecins yi santaane ñoom àgg nañ fa foo xam ne euh, néew ma kenn àggoo fa de waaye man de xaw ma benn jumaa boo xam ne ah, àgg àgg na fa jël nañ seeni matowaay waaye ndigal li sëñ bi joxe nag nañ ko def mooy bu mbooloo teewee ca jumaa ja te mbooloo mooy ña fay xëy di fa gont di fa liggéey ñooña buñ fa teewee teewal nañ fa ñëpp buñ fa buñ fasee fasal nañ ñëpp kon ñooñ ñoo am ndigalul dem ci jumaa ja waaye ku dul ñoom nag su waxtu jotee fu mu la fekk nag a julli te xam ne loolu mooy ndigalul sëñ bi di sof suñuy kàddu ci kàddu yi suñu kilifa yi nga xam ne ñoo njëkk tàmbale ko ci Cheikh Mamadou Basir ak kilifa yi fi yëkkati kàddu yépp ni ñu leerale ndigal li nga xam ne sëriñ bi joxe na ko ngir xew-xew yi xew daayira Muxaddamatul Xidma nag kenn ku nekk xam na ne ndigal li sëriñ bi di joxe te di ko joxe fee ca barab ba eh, dañ koy def fexe ko jëfe suñu kemtulaay kattan loola ci lañ sax ba faw te ci lañuy fas yéene sax bi nga xamee ne sëriñ bi yëkkati na kàddoom ci mbir mi bi mu xewee joxe ci tamit ndimbalam dénk taalibe yëpp ngir ñu sàmmoonte ak ndigali docteur yi ca saasa lañu daal di tàmbali di jëfandikoo loola ngir jël ay matuwaay ci wàllu cet wut ay bërigo teg ko ci bunt yi di jëfandikoo liquide yooyu ñuy jëfandikoo ci loxo ba àgg sax wut ci ay masque ku bëgg ñu jox la ko tey jii nag sagam ndigal li gën naa dollikuwaat ñëw ci ñun fas ko yéenee gën a jëfandikoo li sëriñ bi wax ne bu waxtu wi jotee nañ noddu nañ julli waaye nañ ko bàyyee ñi nga xam ne ñoo fay liggéeyee incha allahu yi daayira bi it dana fas yéene jëfandikoo ndigal loolu ngir ñu wéyal ko fee ca barab ba ba bunt bu nekk nañ ko daa defee danañ fa teg ña fa daa nekk e, saytu it barab ba bu baax ba sëriñ bi e, amee ko ni mu ko bëggee la ca des nag kon mooy labiré suñuy mbokki taalibe ni ko sëriñ Cheikh Mokhtar ko defee léegi ndam li nga xam ne mooy ndam li ëpp doole di ndamul sëriñ bi mooy ñu gis ne sëriñ bi digle ne murid yi jëfe ndigal ni ko Cheikhul Sëriñ Basiir waxe léegi ci màggalu Kazu Rajab gi nga xam ne kenn ku nekk xam na diggante taalibe yi fi ñu tollu seen digg ak Cheikh Amadul Fadal bi sëriñ bi diglee ne nañ ñëpp defee nii toog seeni kër màggale ko fa gis nañ ne kenn ñëwut kon nag ñi ngi am yaakaar di rafet njort ci ne lii sëriñ bi digle sunu mbokki taalibe yi danañ ko defee noonu incha allahu rabbi kon yàlla nañ ko defee noonu te loolu mooy ndamul sëriñ bi kon ñu moytu it eh, ñi nga xam ne dañuy yor seeni téléphone di ñëw di def ay defal seen bopp ay reportage di mel na du li ciy jublu ak bàkku ak di ci jubloo wane loo xam ne influence lay jur yooyu amul solo li am solo rek mooy ñu gis ne sëriñ bi digle na defe nañ ko ni mu ko bëggee